jërë ngeen jëf ku bëgg foo joxañ jant ba fenk fa delta mu fa jant ba jóge yenn organisation société civile yi jógoon démb sol seenu dal demoon wuy ji premier ministre Amadou Ba moom la journal L'Observateur xëyee ci xët mu njëkk ubbil yéenekaay bi collectif suñuy milliards du rees gisee nañu démb ak premier ministre Amadou Ba doon waxtaan ak moom ak i doon leerlu ci li gouvernement bu Sénégal nar ci li waa Cour des wax ne moo xew ci xaalisu fond force Covid 19 bi gaañi société civile bi nee nañu premier ministre Amadou Ba li ñu bëgg moo di yoon dem ca ba jeex lijjanti ko nu mu gën a gaawe nit ñi mën a xam fan la seenub xaalis dugg ku ci jël loo moomul nga goqi ko bàyyi yoon sa kaw l'observateur xamal ñu ne premier ministre Amadou Ba xamal na leen ne yi waa Cour des comptes seen rapport bi ministre de la justice dina ji mooy ku def lu mu warta def ci xaalisu fond force covid bi maanaam ay coupable fanweeri organisation société civile ak lu teg ñoo gisee démb ak premier ministre Amadou Ba ba premier ministre xamal leen ne dinañu ci ubbi ay information judiciaire kañ lay doon yéenekaay bi nee nañu waxu leen ko ndax joxu leenub dat nee na leen it sa mënuñu fee nekk naan dañuy topp ku nekk li nekk ci xët mu njëkku turbine kàddu premier ministre Amadou Ba la yu mu wax Quotidien nañu état bu Sénégal jël nay engagement ci kanamu société civile gi ngir leeral li waa Cour des wax ci seen rapport bi ndajem société civile beeg premier ministre Amadou Ba Vox Populi mi ngi ñuy xamal ne yombul woon ne gaañu jokkalante nañu fa ay kàddu yu tàng jër ñooñu société civile bi bi ñu yegsee dañoo teg ci taabal ji coow rapportu Cour des bi waxi troisième candidature bu Macky ak mbirum ñi ñu tëye ci kaso bi jamono ji te ñu jàppe leen civil bi ñu gën dugal seen loxo ci lu dëgëral système gouvernance bi ci réew mi ngir yu mel ne yi ñuy wax bañ fee amati fonctionnaire yi ñu épinglé ci rapportu Cour des comptes bi te ñu leen di séntu ca kanamu chambre disciplinaire financière source ne nañu bu dee danañ fa demit du doon léegi du doon fi juróomi weer du doon fi juróom benn weer ndax ëttu àtte boobee mu di chambre disciplinaire financière mi yeneeni dossier yu mu réglégul te la ci xëtu mu inspection générale ak environnemental def na fak jalgati ñaari milliards yu mu génnee ca conseil économique social ak environnemental te kenn xamul fan la xaalis ba dugg ak yu mu ne da koo jëloon ngir defar ci image am Le nañu IGE inspection générale d'État joxar bi na baaramum tuuma kii di Aminata Touré ci léexóot gu toll ci ñaari milliards yu mu bàyyi ca conseil économique social ak environnemental ga ma moo tax Macky du ca mën a ci la Sénégal mu nañu fa moom Aminata Touré amul sikki sàkk ci ne bu Macky Sall dëndam doon candidat 2024 candidature ba buy yegg ca conseil constitutionnel waa conseil constitutionnel di ko rejeté waa SAP ko rejeté nañu maanaam dàq nañu li ñu leen di tuumal ca saliga ci mbuur ci coow taxawal zone li ñu naan SAPCO dafa am 577 hectares ko nee na 9 fa mairie bu Saly am fa 3 ngir war faa ab centre de santé akub lycée li xew yépp moom jàpp na ne manipulation la ñu romb mbuur dem ca njaafaat ga ca Kaolack jàngalekat bu góor ba ñu fa agressé woon bu yàggul l'observateur nee nañu mujj naa faatu lambu ji ak sunu lambu lambi Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 gi fi woon keroog benn fan janvier am na lu ca xew ñoom ñaari mbëri sunu lamb nee nañu CNG bi dagg na leen xaalis bu bari ndax dañoo wàcc ñoon li CNG bi dagg ci reliquat ñaari mbëri yéenekaay bi nee nañu buñ ko boolee ëpp na juróom benn million Balla Gaye 2 dagg nañu ko 2 millions 460 mille ca pàcculi mu di Boy Niang 2 ñu dagg ko